السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw bi ñu delluwaatee sant yàlla ci mbaaxam sant yàlla ci def lu ko neex te duñu xiir ci lu baax waaye sant yàlla ci nekk ay doomu aadama ñu bokk ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye sant yàlla ginnaaw ñu nekkee ay jullit waaye sant yàlla ginnaaw ñu boole ñu bokk ci mooy jamono Mawlana Cheikh Tijani ay santar yàlla rek ñu boole ci mu mel ni cant yi nga war a bari lool waaw ñu day mukk di ko sant di ñaan yàlla wa taala mu doon ñu taxaw muhammad sallallahu alayhi wa sallam di julli ci sayyidina muhammad mi nga xam ni mooy xaatimi nabiyiina wa imaam mursaliina moom mottali yonante waaye mooy seen kilifa wa tabaarakallahu di ñaan yàlla borom subhaanahu wa taala mu doon li ñu ñu bëgg rasulullah mu doon li ñu sopp rasulullah mu doon li ñu sopp rasulullah sayyidina muhammad moom nga xam ni yàlla ku bëgg yàlla bëgg la ngay bëgg ku bëgg yàlla xool la xayta boobu mooy xool ni Rasulullaay di sant yàlla ci loolu rek ginnaaw bu ñu may làmmi ak xel bi ñu mën a julli ci Seydina Muhammad di ñaan yàlla rek yàlla yàlla dool li ñu sopp la Rasulullaay waaye di sant yàlla tamit di delluwaat rek di ñaan suñu sëriñ Mawlana Cheikh Tijaani ñaan yàlla dool di ko yërmandeeg leer yàlla dool di ko jéggal bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu lañ koy ñaanalee si maam Cheikh Sidi Hajj Malick ak mboolem muqaddam ci kaw suuf ak mboolem julli ci kaw bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu di nuyu tabarakallahu le président du site di di Serigne Sam Seck di ko ñaanal yàlla yàlla doon taxaw comme ni yàlla doon dëgëral ak mboolem koo xam ne yaa ngi liggéey ci site bi di ñaan yàlla borom subhanahu wa taala yàlla yàlla taxaw leen jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa tabaarakallahu di nuyu nag di ziyaara xalifa général de Tijaan Serigne Babacar Sy Mansour atala umruhu wa ayyadahu nasara di ko ñaan yal na yàlla guddal fan yal na yàlla taxawu ko yal na yàlla dëgëral ko yal na yàlla jàppal ko noonu lañ koy ñaan ne tamit xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di ko ñaan moom it yal na yàlla guddal fanam ak mboolem xalifa si ko suuf noonu lañ koy ñaanal Cheikh Bécaye Bécaye Kounta xalifa général de Xaadiriya nekk ci Ndiassane moom it noonu lañ ko koy ñaanalee di ko ñaanal sëñ Bombaay Bécaye Kounta nekk ba Ndiassane di ziyaara moom ak mboolem ñëpp ñoo ngi leen di ziyaara kenn kenn yàlla borom di guddal seen fan wala jàppale di yàlla yàlla dafa def ci réew mi jàpp ne bu gënee ci yow yàlla na ko yàlla jox su gënul ci yow yàlla na ko yàlla tegi te jox li gën ci yow bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom seen émission bi al ilm wa taalim fii ci Salam Vision di xam ak xamle ngeen ànd ko seen xarit seen soppe ak Oustaz Ibrahima Diarra waxtu bu jot fii nii ñu koy ànd ak yéen ci chaîne YouTube bi di Salam Vision nekk ci baar yi tey nag ñu ñëw ci yéen a ko sopp ci njàpp wax na wax naa ak kaw ne leen boo ko defee am boo ko deful doo am dara yii nag dañ ko sopp rek su la neexee def boo la neexee bul def waaw boo ko fadaale ngëneel mooy lu dolli mooy yustahabu nag dañ ko sopp rek li ñu sopp moom amul dara soo ko deful tamit dara du la fekk waaw mu ne waaye saxaaba sopp nañu fii asaabi lis day ni ci ngay xalil say baaraam loxo comme boo doon jàpp day def nii rek ndox mi nee na baax la waaye parce que loxo yi duggante ñu ne sopp nañ nga wax ne taxliilu lixyatin xafiifatin laata ne mooy saxabu sopp nañ tamit fii asaabi mu xaalit ay baaraamu tànkam waaye nag tamit sa bi nga defee ni sa baaraamu loxo yi xaalit ko noonu la la may nga xaalit say baaraamu tànk mooy baaraam yi nga dugal sa ba xam ne fépp dina mën a tooy doo bàyyi fenn foo xam ne tooyul mu ne mooy saxabu sopp nañu fii asaabi rijlayni ci muy xaalit mu ne waaye jibu dana war nag tax léegi ndax yéen xafiifatin bu oyof fi wutu ci jàpp kon loolu dafa war day war ci sa sikkim comme ni mu doy barewul nee na ko nii booy jàpp ba mu mën a laal dara comme dara bi waaye nag fekkee nag dafa sëq sëq comme ni ko gars yi da bu gudd nee na boo yéexee def si kaw sikkim bi rek bàyyi mu waaw bu fekkee ne sikkim bi nii la toll nee na koy xale bi nii wóor na ni dina a àgg na nii da koy xale def nii laala comme ndox mi mu laal ci der waaye day sëq comme ni ko yi guddalee di ñi nga xam ne dañuy guddal mu bëgg mu wàcc mu ne way ji nga war nag tax lii nee na nga xaaj ko bu gudd bi ba ngande ngande ngande boobu noonu njàpp dala waxoon na ngay nii rek waaye nag nee na fii xuti sangu déedéet waroo kaana kaché fatal nee na bu dee sangu farata la nee na da koy xaaleel di gi bare bare bare bare bare bare bare nee na ngay dugal sa loxo da ko xaaleel mu àgg sa dara ci sangu farata bu dee njàpp may na la waaye bu dee sangu farata nee na dañ la wax ko ba ndox mi dugg ci biir kon tabaraka ñu déggee ko noonu moo tax mu ne nag mu ne moo tax mu na nga koy xaril soo ko xarilee nga nga nga jël ko di dem tas karaw gi di ko tas mooy bu sëq bi ci sa ci sangu farga bu sëq bi nee na ko tas di ko def nii di ko tas ba mën a àgg ci biir bu mu leer na karaw gi yëpp tooy waaw bu nee ci njàpp nag nii nii nii nee nee defal nii rek bu sëq bi waaye bu dee sangu farga nee na ko xalil di jël sa loxo di ko tas di ko tas di ko tas di ko tas ba mu tasaaroo ba der bi tooy kon tabarakallahu loolu lañ desa woon ci li nga xam ni mooy ci musa mooy ci xam ni sopp nañ ko waaye mu wasahaabu sopp nañu fii asaabi rijli ci mu xale way saabu sopp nañu fii asaabi taxnilu asaabi yadayi mu xaalil ay baaraamu loxo mu ne way saabu sopp nañu ba tey fii asaabi rijli ci muy xaalil ay baaraamu tànkam mu ne way di mu dara war taxnilu lixyati xafifatin mu xaaleen karoom bu ayof boobu fii wudu ci njàpp duuna kashifatin waxuñu mu fatt nag wala boo tax wajib dana wax ne tax ni loxaa xaaleen ko fil xul sangu wala kaar donte nekk na kashifan luñ fam mu teg ci indi na li nga xam sopp nañ ko ci njàpp indi na lu jàpp indi na la jàpp indi na li nga xam ne moo yàq jàpp mu ne ahdaas su ay toj la wa asbaab ak ay sabab kon ahdaas daa am asbaab am ahdaasun ay toj la ay ak ay sawab mu ne fa amal fan fan ahdaasu daa toj yi yi xam ni moo ko defee ci saa si mooy jàppul yàqu na bokkul ak sabab bi ko bu ci jiitu mu al bawlu mooy nga tuur ndox li gaa yi saw waaw mooy tuur ndox mooy saw moom la gaa saw wal ngaay bi ak dem duus mooy dem cabinet waaw dem tuur dugub loolu dafay yàq waaw ni ma gars yi dafay desal nag ci mbooloo rek am lu génn biir waaw woyof angalawa mën na génn kawe mën na génn oyof ci suuf loolu dafay yàq jàpp wal mesure ak mesure mesure la daañu wax ne la mesure lu muy mel mesure bokkul ak wasu bokkul ak wadu yi waaw wal mesure ak mesure wal wasu ak wasu nee na yii dafay mooy mooy saw yi nga xam ne dafay yàq bi ci jiitu mooy ak booru mooy saw mooy tuur mooy mooy saw tuur ndox wala bopp ñu xeetu ndoxente nag waaye jël ndox mi tuur mi déedéet waaw ñu xam Sénégal yi bari saw lañ xam xamuñu tuur ndox kon al bawlu mooy saw wala aaya al jëmbuus ak xam ne ba foo xonte léegi léegi dina tuur ndox ñuy tuur ndox la mooy tuur ndox parce que seen olof àggul foofu kon al bawlu saw wala aaya ji al jëmbuus waxuñu nga dugg ci douche bi rek génnaat waaye nga toog tuur dugub waaye nga génne dara sa biir mu génne ci douche bi mu ne wala aaya ji ak jëmbuus war réewu ak ngelawoon ngelawoon mu tay ko mu bañ koo tay am yoo xam ne buy génn day jël saa yu génn mbool yu xam ne am yoo xam ne mën na oyof lool waaye place ba xëy lool ba gars yi commencé mu ne booy war mesure ak war wadu mu ne yii daal tabaarakallaahu mooy sabab ñi nga xam ne mooy toj yi nga xam ne dafay yàq jàpp mu ne asbaabu nag bu dee sabab yi nag ànnamu mooy nelaw sa xiir yu diis ba ne ci asmaa yu nag daf la fay tasaare ñeenti xaaju nelaw yi mu ne noomu te wiiru saqiirul nelaw bu gudd te diis ak noomu te wiiru nelaw bu gàtt diis ak noomu te wiiru xafiiful ak nelaw bu gudd te te oyof ak noomu euh, ak noomu xafiiful diis lool kon ñetti ni façon nelaw yi fa tabarakallahu moom la borom téere bi indi koo xam ne da nga nelaw ba nga pare da dugg sa biir néeg nelaw nelaw diis te yàgg nit dugg na ci néeg ba génn yëngoo na dugg na ci néeg bi mu ne nelaw dafay yàq jàpp ak nelaw boo xam ne dafa gàtt lool te diis nit dugg na ci biir génnaat te xamoo ni dugg na ci néeg bi génnaat nelaw boobu dafay yàq jàpp ak nelaw boo xam ne dafa gudd lool. lool du ñu guddee waaye dafa oyof yaa ngi def ko nii di def nii yaa ngi def nii ka def nii kooku sopp nañu la jàppuwaat ak loolu boo xam nag dafa gàtt lool te oyof lool kooku la ñu wax ni kooku sopp nga jàppuwaat waaye boo jàppuwaatee moo gën kon moo ne ñeenti nelaw yi moom la lay indi wax la yi nga xam ne moom mooy asbaab yi xam ne moo jóge ci nelaw mu ne man asbaabu sabab yi am nelaw mooy nelaw saq yi diis wala maaw ak xëm ñu dóor la nga xëm wala nga wala nga wala wala julli daal ma xam wala wala wala wala mu tàng nga jàpp fi nga xam li tax ñu ba xëy pare nga ne jàpp waat ndax ci xam boobu mën naa nga dal ci doo ko yëg waaye wala ixmaawo ak xam wa sukru ak mandi mandi nga julli pare mandi bi koy wax nag mooy lu mandi daganee waaye léegi mandi daganu waaye bu ñu jàpp ne sàngara rek mooy mandi nit mën nga jàpp pare lekk tàndarbu tàndarbu mandi loolu mën ngaa naan soow bu soow soow giréem mu màndi loolu mën ngaa naan ñëw diis mu màndi loolu yii màndi loolu doomu aadama daga dafa bari lool waaye nag bu ñu waxee màndi rek ñu bàyyi xel day dem ci sàngara naan waaw nit dañ la mën a jóge près di màndi nit mën a jàppare dem lekk ci tàllal wi màndi waaw nit mën a jàppare moo dañ daan tere mag ñi ngay lekk si yàpp ngiree bu duuf dara màndi day màndi doomu aadama kon lii màndi doomu aadama bari na lool kon wa sukkuru ak mandi soo mandee soo dellu suwaatee sharia nee na na nga jàpp ci wax wal junuunu ak caddub jinne mooy ñi xam dañuy daaw rob jéeg-jéeg saa ni ni bëtt daanu ñu ne la bee ko song wala jinne jéeg ko song nee na boobu bu jugaatee da ngay dem nga jàpp ci wax waxulanu ak fóolante soo jàppoo pare nga dem fóot waaye nag fóot gi ci ko indil la ban façon fóon bi nga fóonee am nga ci bànneex wala am nga ci bànneex jubloo nga ci bànneex wala jubloo ko ci ba ko ci jubloo am nga ca wala amoo nga ca ba ko ci jubluwul am nga ca wala amoo nga ca yooyu yëpp téere bi indi na ko fa tabaarakallaahu buñ fi yàlla bàyyi ak yéen daan ci daan ci àgg ak yéen waaw wala wax xuddatul ak fóonante waaye nag mag ngi ne ni boo jàppoo waxuñ ñu sax fóonante waaye sa loxo ba ko jox xale bu jigéen ñi moo xam nga yëg ko ci moo xam nga ñàkk ca ba yéen nga xam ki nga jox jigéen la nga ñàkk li ni ki nga jox jigéen la mag ngi ter nañ sax nga jàpp ba pare di jox jigéen loxo ndax de seen naa waaye rek bu dee sa jabar foofu la coow li nekk rek bu dee sa jabar rek foofu la wax ji nekk waaw bu dee sa jabar la foofu la wax ji nekk ak sa doom ak yooyu maanaam waxu la dul ak fóonante te ni nag du fóonante doomam xanaa jabaram leen fóonante kon nag wax xullal bi ko chara di wax sa jabar moo tax luy wax waaye ay jalak ay ay faranto kooku taxul luy wax mu ne wax xullal ak fóonante wala su maraatin ak laal loo xalam jigéen bi in xasara na jublu nga ci lasata bànneex moom laa lay wax léegi léegi léegi in xasara lasata wajadaa in xasara lasata ah, lam wajadaa bi nga xamee jublu ko ci te amoo ko ci na na na la muy àtt bi bi nga xamee ni yaa ngi jub am ko ci lan muy àtt bi bi nga xamee ni jubloo ko ci amoo ko ci lan muy àtt bi bi nga xamee ni jublu góor a ci waaye amoo ko ci lan mooy àtte bi fa tabarakallahu buñ fi yàlla bane ak yéen incha allah rabbi daan ci leer ak yéen yëpp bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni ñu cëlloo woon ci waxtu bi mat na di ñaan yàlla borom subhanahu wa taala lépp lu ci wax mu nekk ay leer sax suñ kaw lépp lu ñuy jub yàlla jéggal ñu ko bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nii di ziar di ñaan suñu sëriñ boobu xalifa Ababacar Sall di doom ci maam Roqeelu si di doom di seet si Cheikh Sëriñ Babacar si di seet si Cheikh Seydi Hadji Malick moom mi nga xam ne tabarakallahu moo taxoon fii Pikine institut islamique Serigne Babacar Sy waaye daf ko zëriñu suñu moom Serigne Babacar Sy di ko ñaan yàlla yàlla gën a guddal fanam yàlla yàlla taxawu ko yàlla yàlla sàmm ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñuy ñëwee sama Serigne boobu tabaarakallahu Serigne Ndiaye Bousso nekk Euh, nekk ba njaareem di ko ñaanal di nekk ba Mbàkke di ko ñaan yàlla yàlla taxaw ko yàlla yàlla sàmm ko yàlla yàlla dëgëral ko noonu lay ñaanal sama yaay sama waajur bu jigéen noonu lay bi faatu yàlla yàlla yërëm ko noonu lay ñaanal sama sëriñ Oustaz Babacar Diarra di ko ñaan yàlla yàlla taxaw ko ak mboolem koo yaa ngi ànd ak ñun al ilmu wa taalim di ñaan ko moom moom suna seet maa ngi lay ñaanal maanaam guy yàlla yàlla barkeel leen ménage yàlla yàlla di leen mën lay nuyu sama sopp boobu bàyyi galas Cheikh Adja waaye nag bàyyi Mama Cheikh waaye di doon ci Mama Cheikh loolu lu nuyu yàlla yàlla taxaw na di nuyu nag sama rakk jooju Amadou Lo le grand DG tabarakallahu di ko ñaanal di nuyu Assane Diarra ak taala wa barakaatu